mbokk internet di du monde tv asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal ci déglu bi ak topp bi tey nag dañu fas yéene dégtal leen ab waxtaan boo xamante ni mi ngi ñeel ñi nga xamante ni ñoom la ñu woowe agence d' assistance à la sécurité de proximité ñu gën leen a xam ci ISP mais nga xam ne nag ñi ngi ko samp depuis le 5 août 2013 ci boobule waxtaan nag ñi ngi ci fas yéene ànd ak ki nga xamante ni ni mooy Bakary Mballo doon seen coordonnateur de l' union des ASP du Sénégal bokk ca njiit ya Bakary ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci loxoy du Monde TV xanaa ñu bàyyi la rek nga daal di présenté wu ak suñu mbokk internet yi. asalaamaaleykum loolu du Monde TV maa ngi tudd Bakary Mballo kon natoo de l'union des ASC di kontaan ci bu baax a baax jaajëf Bakary yow yaay coordonnateur de l'union des ASP du Sénégal ñu bëggoon a xam métier ASP seen liggéey fan la tàmbali ak fan la yem lan mooy ASP dëggantaan. waaw ASP mooy agence d'assistance à la sécurité de proximité. am ko depuis euh, août 2013. liggéeyam mooy alerter et veiller voilà les forces régaliennes la police la gendarmerie euh, tous les services administratifs de déconcentré de, de, l'État. waaw ba ñu sukkandikoo ci sab tontu ndax ASP kon am nga possibilité dem ba dugg biir police wala mu dugg gendarmerie maanaam nga nekk agence de proximité dem ba ci yàgg nga daal di dugg ci biir police bi wala gendarmerie di fa liggéey ndax am ngeen possibilité boobu. waaw ASP daal amul possibilité dugg police ak gendarmerie xanaa mu jaare ko def concours. ñun ak police ak gendarmerie li leen di defal mooy assister dañ leen di assister. c'est seen liggéey. voilà loolu la liggéey ASP daal liggéey assistance la. voilà mais pour nga dugg police ak gendarmerie il faut nga jaar concours nga def concours dugg ci ci corps bi. Mballo ñu bëggoon a xam itam yéen jafe ngeen am ci seen secteur ndax gis nañ ni jamono ji ñu toll secteur du ci bëri yëngu na ku ci nekk yaa ngi def say revendication yéen ci wàll wi ngeen xam ne fa ngeen féete ndax am ngeen fa ay jafe-jafe bu dee am ngeen ko tam jafe-jafe lan la. voilà posé ma question bi ma sawar a sawar a tontu incha allah ñun daal depuis 2013 dañu waxone ne deux ans renouvelable une seule fois deux ans bob renouvelable une seule fois bob. yokkat nañ ko yok yok yokkat yok yokkat heure du may wax yow ni depuis 2013 jusqu'à nos jours ngi yok yok rek di prolonger rek di prolonger à chaque fois voilà tey nous sommes à la 9 neuvième année bientôt à la 10 dixième depuis 2019 nak ñu ñi ñuy dégg ne euh, dañuy dugg doon dañ doon dugg fonction publique waaw ñu def ay atelier Mbour ñu ne surtout les collectivités territoriales Mbodjeen un certain nombre ak yenen corps administration ni les sous-préfectures les préfectures les gouvernances et autres ñoom tamit soxla nañ ñu def synthétiser yépp ñu yaakaar na de 2 janvier 2020. ñu vingt mënoon nañu dugg fonction publique ce qui a été loolu tuuti woon nag après nag 2020 aussi corona bi ñëw ñu yaakaar ne loolu dina dina un déedéet ñu xaar ba ay mois de mars ne léegi Vu la situation épidémiologique du pays actuellement, voilà, nous repoussons Kibi de 2021. L'année Janvier 2022. bu bu mu passé nag ñun ñu organisé ñu def ay revendication suñu ak ak yëlëf dund nañu juróom ñeenti at bu yokku payoor bi cinquante mille kese depuis neuf ans cinquante mille yokkul dara yokkul te ñun gis nañu toutes les couches sociales du pays actuellement muy police muy gendarmerie mooy ñeneen ak ñeneen euh, yokkal nañ leen waxuma la ci même waa waa comment dire ñu ñu dugg yàgguñu sax dañ leen yokkal kon lu tax ñun duñ ñu yokkal ñun te ñun eh, ñoo gën a yelloo ñooñu parce que ñun on a fait le volontariat depuis huit ans neuf ans on est là. deux ñëw ñu xaar tamit ba ay fin janvier. ñu annoncé ñu ne léegi. dañuy taxawal corps spécial. corps spécial boobu moom la ñu wax ne depuis deux mille vingt et boobu moom la ñuy taxawal léegi xaar leen fii ak neuf mois rek dañu yokk contrat bi. exceptionnellement neuf mois seulement et puis j'ai année après le cours spécial mais à notre grande surprise 2022 bi ñëw hein ñu fin juin et janvier plutôt Nous ne léegi au plus tard président conseil des ministres au plus tard accélérer la création du corps spécial après juin au plus tard mois de juin de defal ASPI statut au plus tard la waxoon heure bi may waxee ne yow ñu ngi au mois de octobre ba léegi amul statut amul dara waroon na depuis le mois de janvier février ñu ñu yëngu ngeen gis ne ay manifestation ci dëkk yi yëpp mais au sorti de ces manifestations lan la ñuy fa jëlee ñu dakk illégalement comme ça waaw illégalement je le dis bien parce que dakk buy am borom da nga koy convoquer conseil de discipline au moins ñu nga entendre ko voilà boo teg boo gisee ñu def manifestation mais c'est la direction ki n'a pas communiqué direction moo amul communication du communiqué ñu ngi si seen position ñun toog na fu ñu woote woon nit ñu waxtaan tey na loolu yëpp ñu arrivé sax duñ dem def manifestation parce que c'est le manque de communication moo waral manifestation yi am moo waral dox ñattu gisoo bu amul rek waxtaan bu amul si on n'échange pas loolu mooy waral manifestation am parce que nit ñi duñ yéegu nag ñu jël lu diis ñu teg ci ñun ñu ngi rajo lu ëpp cent cinquante ASP heure bi may wax ak yow. waaw tàgg ñu suñu payoote le dernier mois le mois de février bu ñuy dagg vingt cinq mille lañ ñu fay vingt cinq mille kese ñu xool vingt cinq mille ñu fay ñu voilà ñu dagg suñu pécule yëpp te pécule on du doit pas couper un pécule pécule jàmbur kenn warul dagg pécule jàmbur kenn amul droit dagg voilà mais loolu yëpp ñu ngi ko def te ñun ñëpp fii ci réew mi lañ nekk volontariat ku def volontariat neuf ans nga xëy benn kii xëy na eh, incompréhension la la da mais kooku war nga ko woo nga waxtaan ak moom au lieu que nga jël euh, une mesure aussi sévère que ça ngeen dàkk ko des soutiens de famille nous c'est ce que nous déplorons et nous appelons tous la population sénégalaise mooy les bonnes volontés que vraiment nañu xoolaal ñu nekk ci âge bi âge bi ñuy dund dafa métti trop métti na dégg ni dayo te amul foo koy waxee foo ko wax ñu ñu ñu kii la léegi dem na ba ba nga xamante ne léegi da ngay wax âge ñun ñoom rek ñoo sañ wax aay ñi ci des ñi nekk ci service bi sañu parce que boo waxee ñu dakk la ñu ngi dund lu métti il souffre en silence loolu mosul am volontariat pendant dix ans musul am boo waxee ñu dakk la loolu fu ñu dem ñun yëpp Sénégal lañ dëkk on a rempli nos devoirs pour réclame le droit c'est ça tengan min borom ker lolou fay loi ça ah. wa mbala ñu bëggono xam itam ndax ah, am ngeen ab possibilité di jokko ak ki nga xamanteni moy seenu jeewrin manam ki nga xamanteni mom lañu denk secteur bobu di ASP di biram fay ndax am ngeen possibilité di daal di jokko ak mom ngir revendication yi nga xamante ni am ngeen ko mu daal di ci mën a jot ngir indi ci ay saafara. Euh, ñun jéem nañu jéem nañu ba sonn dem nañu euh, man ak euh, ku ñuy wax ca Mbacke te ñu bokk liggéey bi dem nañu direction demaat nañu fa ànd ak sama benn sœur mooy Kumba dem nañu demaat nañu direction bind nañu même audience pour gisee moom. mais déedéet mënuñ ko gis bindaat nañu ay lettre de grâce dafa am ñi ñu yebal ñu ne ñu bind leen lettre de grâce pour ñu ñu ba ngeen baalu dem nañu même baalu aucune suite waa dëgg yàlla amul suñ deful pour gisee ak ñoom waxtaan mais ba léegi fi may wax ak yow ni mënul am ku mun a jokkoo ak autorité yi na leen wax ne vraiment nous sommes de soutiens de famille nañu ñu gëstuwaat xam ne ñun on est plus de cent cinquante personnes ku dakk cent cinquante personne mu xamoo la def parce que loolu métti na trop mu ngi dund loolu depuis huit mois amul fu ñu dugul dem nañ ci sëriñ yi dem nañu dans les bonnes volontés ñu ngi ni oh, eh, gi ma di saña au passage di ko vraiment jajeufal ñu tambalé xex bi ba légui mu ngi ak ñun ba légui nek na député même bu mu nekké député mu ngi ak ñun faté wuñu ben yo mu taxaw di xex dina wax suñu tour koy jajeufal di ko ñaanal wergu yaram di ñaanal vraiment plein succès dans Sansan Nouvelle Mission. Waa Bakar ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci tontu yi ak leeral yi waaye itam di la jaajëfal itam ci disponibilité bi di la wax rek sa kàddu gu mujj lan la lan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñoo ci loxoy di Monde TV. Waaw man maa ngi wax rek vraiment di ñaan yàlla di ñaan yéen tamit wóore di Monde TV eh, yàlla ngeen yàgg fii vraiment tele bi nii am na solo trop seen liggéey rafet na macha na yàlla yokkal leen eh, vraiment yoon bi leer yokkal leen kattan euh, may leen wér euh, bu ngeen mën a topp seen liggéey comme ni mu waree